président ne Chérif Moustapha yow mi nga xam ne yow ak Chérif Abdourahmane yéen bokk ndey ak baay mi ngi lay jaal bi mu jaalee xalif général kullu murit sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér mi ngi koy jaal tam xaritam di rakkam di lamin Faye nga xam ne mooy denc itam doomu shérif te nekk euh, mën naa wax xarit nekk kenn ci shérif Masalikal Jinaan ku gisaan shérif gis ko ci wetam ku gis laminit gis shérif bari na lu mu doxal shérif président di ko jaal Sénégal yépp ministre d'État ñoo ngi la koy jaal ma ah defe naa sëtu sëñ ci sëñ Touba yi fi nekk yëpp ñoo ngi leen koy jàll sëñ Bas Xadim Awa Ba sëñ Modou ñoo ngi la koy jàll ak ñi fi fekk ñëpp président ne mi ngi koy jàll communauté bi communauté Mor Baara ñoo ngi lay jàll tam ndax xam nañu sa tànk ci wetu shérif. dem dañuy nek conseil des ministres ñu tok ba ses yag mu am huissier bu dugg mooy ñiy toppatoo euh, mbir mi ni muy démé bind mo seug ci nopp président dem président tok lu yag kenn dégg ko ba ses yag mu ne ah man kak sama xarit mo fi jóge sànq Abdul Rahman Fall Tilala def témoignage ci mom nee na incha allah dina ñëw ba ci famille bi jàllal leen ko boppam ci suba gi nii dafa am lu mu waroon a tijji mu dem ca njort nag moom taalibe gëm njort moom am nañ ko ne incha allah shérif suñu mag suñu xarit ah tey du li mu jaayante woon ak Cheikhul Khadim ndax li tax ba ci bés bi ñu ne tey ñëpp a ngay dem ca maam jaara moom ñu koy delloo tubaab njabootam di ko dénk sëñ bi man ci sama wàllu bopp maa ngi jàllit famille bi yëpp duma fàtte mukk 1990 ndax kollëre Chérif kollëre sama mag la woon Cheikh Diop John 90 ma nekk jeune dooga am soxna ñu affecté ma Abidjan banque centrale Chérif ñëw fa 90 ak léegi 30 ans la ànd ak euh, rakkam defe naa mi ngi dëkkoon boori Marpori ñëw sama kër ak euh, doomam bu tudd làmp mu ñaanal ma ne ma yow laa dénk làmp bu ndaw la ma président xamna ci lu bari taxawu président ci ak plusieurs fois Lamine mi xamna ci dara donc président ngi leen koy jall dañuy gattal rek ñu koy euh, délégation bi ñëpp tay mënon nañ fi taxaw wax Grand waxal président dafa fekk président dénk ma kàddu gi rek ne ma naa ko waxal lii def témoignage bi ñoo ngi koy jaayal Sénégal yëpp.